mayuñu jàmm kenn mayuñu salaam c'est pas la première fois ça fait deux ans yoo xam ne dañu yeewu rek yeewu ci ay problème suuf suuf yoo xam ne suuf yoo xam ne suñu maam yee ko moom nit jógee fële ci biti ñun naar yi naar yi kan mooy dem ci dëkku naar yi di fa am lu ko neex ba mu des suuf amul kenn kuy dem ci dokku naar yi di fa am lu ko neex ba mu des suuf yéen ngeen jógee fële ñun xamuñu yan doomi aadama lañu rek ñëw moome ñoo ne kenn xamul lu mu doon yow nit ñi woor ngeen bu ñu woor nit ñi toog nekk ci seen jàmm ñu ne bu kenn am jàmm nit kuy nelaw ngeen bu mu nelaw waaye yéen lii lu mu doon yéen waa Sénégal ñëw leen ngeen jàppale ñu soxla nañu seen ndimbal ndax soxla nañu suñ suñu suuf si ndax suñu maam yi ñoo ñu fi wàccal suñu suuf te suuf si soxla nañ ko pour ñun ak suñuy doom ëllëg soxla wuñ ko pour keneen kuy joge ci biti ñëw di ko utiliser nañ ñu jàppale nañ ñu dimbali soxla nañ suñu bopp ak suñu dëkk